mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24 point net am mbégte am contentement bu baax a baax a baax di jàkkaarloowaat ak yéen fii ci biir Sunugal 24 point net ci émission bu mag bi Lambalog tey nag dañ koy décentraliser li tax ñu koy décentraliser mooy dañoo seet ci ki nga xamante ni doonatul ku ñuy présenté ci réew mi ak ndaanaanam it yaakaar naa ne kenn dootu ko rente ci réew mi moo tax ñu def dérangement def déplacement ma ànd ak mon ami mon frère Libaas le caméraman de tous les seet si présenté ci réew mi c'est le grand champion Wouly wulli bu Sénégal wulli bu àdduna wërngal këpp wulli bu reefan tey moom lañ seet si fu seeni waxtaan ak moom tolluwaayam ci wàllu làmb nan la giseel nan la gisee li nga xamante ne moom mooy làmb ji en ce moment ni muy déroulé du mën a ñàkk ñu waxtaan ceeg moom bu baax a baax a baax am na combat digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Adama Diouf Adama Diouf tamit doon champion comme moom DKR nga xamante ni yaakaar naa ne le coordonnateur Pape la Pape Sarr bu moo décroché combat moom ak Adama Diouf xaleb grand bi mu nar a doon combat bu neexan ah, war am saison bii di ñëw incha allahu rabbi libaas du ñu def lu dul nga topp ma rek ñu xool ki nga xamante ni moom mooy champion bi ñu waxtaanee ko. ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy kër wulli du ñu def lu dugg ci biir xool ko fas yéene am ak moom entretien bu am solo. waaw libaas mu mel ni yaakaar naa ne wokkatu bu dajee gestu la grand champion baa ngi doon di wuli Sunugal 24 làmbaloog seet si la jaw fara ànd ak libaas rek fu seen waxtaan ak yow non loolu damay neex parce que yow ma def émission kon tey boo ma defee bet ma ñëw fii euh, ma leen di siyaar di di nuyu waa Sunugal 24 nag ko waa kontaan naa nga ñëw fi seet si ma fii ma dëkk Kër Massar dañ la xaw ma woon sax parce que man maa ngi bëgg dem entraînement ni salla dem ni quoi. <laughs> alhamdulilah alhamdulilah dama léegi ka dem ci kaw salle bi am na ci kaw. non mais est-ce que tamit duñ toog fii rek mu naturel wul li toog fii rek mu dëgg neexul nañ toog fii rek. kon xaamu wa. Sali Dior. Sali Dior mën na. chéri wu sama chéri waaw Sali xaamu wa. mbokk internet yu suivre Sunugal 24 point net comme ni ñu leen ko waxee ci introduction bi rek ñu ngi nii togg ak le grand champion Wouly dañ ko bett nag fas yéene waxtaan ak moom ah, du mën a ñàkk ñu xuus bu baax a baax a baax a baax ci làmb DKR décroché combat digganteem ak Adama Diouf dinañ ci xuus bu baax a baax a baax problème mu CNG bi faaw mu joxe ci point de vue am ak combat bi nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24 point net Wouly maa ngi lay bon na mi moo fere maa lay yow sama waay nga ne di sant yàlla di sant yàlla di santaat yàlla di ju Seydina Muhammad sallallahu taala sallam di sant sama ñaari waajur sama ndey ak sama baay di ñaanal sama papa yan na sabam yokk yokk ay leeram tamit ci barkeem di sant sama sëriñ sama wasila sëñ Moodu xabaan Mbakke di sant doomam sëñ Takko Mbakke di sant sëñ Abdou Karim Mbakke di waaj nag dem tubaa Mbakke magali bu baax a baax a baax a baax di sant waa Touba Mbakke ñëpp di gërëm sama dëkkandoo yi waa ma Massar di sant sama soxna Salimata Jon sama soxna sama gars yi bëri nag noo foog ne ñaari jabar laa yor benn jabar rek laa te it bëggum sax ñaare doy na benn jabar laa yor doy na Sali Jon rek doy na sik di sant sama doomi Henriette Aminata Diouf Henriette Diouf Ndeye Marème ak euh, Baye Diop di sant nag sama xarit Karaambooj coow li bari na le départ d' Alioune na dem Alioune na toog point de vue wuli lan la. man CNG man yàlla dafa dogal ministre des sports nekk sama père maa ngi fi ay numéro ak i vocal ko dëggal sama xarit dañuy dëggante lu bëree bare bare bare bëri ministre des sports Matar Ba nekk sama père ma dem ba këram Fatick doomam di sama xarit Nicolas Ba. soxnaam yaay Asta Diouf di sama yaay Ibrahima ba doomam maanaam ministre des sports dama xam bu baax soxnaam ak doomam yëpp mu sama xarit ak caat bi ba si sa aussi maa ngi gërëm muy safaram di gërëm Mamadou Ngom ñaamu daas bi maanaam CNC man xam naa ne Euh, Kéba Kanté sama xarit la maa ngi koy nuyu bëgg na CNC mais CNC du du candidat boo xam ne dañu koy. du lu voté dañ parce que léegi maa ngi dégg soo soo technique ne bëgg na Kéba Kanté ne bëgg na ñëpp bëgg nañu mais le ministre des sports mooy mooy choisir mais nag ministre bi aussi man sama part personne bu ma doon xelal pour mu choisir daa war a choisir koo xam ne. lam moo ko bëgg koo xam ne ñu ëpp ci lam bëgg nañ ko te actuellement nii boo xoolee ñi gars yi gën a bëgg muy Keba Kanté boobu bu caaxaan jee ba des le monde de la mu ñu bëri yeeg ancien militaire yu bëree bëri Keba Kanté la ñu gën a sollicité. noo gisee zoo technique bëree ba bàyyi bëree taxaw. di ko encouragé sama xarit <laughs> xam loolu dama ci keroog wax naa ko naa ko man dinaa ko man damay kontaan ci yow en tant que mbër mu bay bëre nekk ci sax liggéey nga taxaw ne nañ ma jox CNG parce que aussi man mënu ma d'accord lu toll ni seen lu toll ni euh, Sénégal soo teg nga dégg mu wax ak Keba Kanté kese pourquoi pas ñu leen duñu wax parce que CNG Alioune Sarr ni mu amee xam-xam loolu la ay nit amee xam-xam mën a yopp lamb ji comprends mais di encourager soo technique bu baax a baax a baax a baax a baax parce que aussi xale la am na jom xool bu rafet la yoon mu ngi mu ngi def fii social bu baax a baax ndox mi yëpp di ko encouragé ah ñoom ñëpp nanu laaj même ñoom ay soo technique ay euh, Kéba même bu leen mënu jox président bi mais nan leen woo ci groupe bi ñu am seen xel di conseil loolu am na solo. Mohamed Ndao Tyson moom laajul. mais axlu làmb moo am yaakaar ci moom taxawaayam. moom man à part personne wuli Mouhamed Ndao sama xarit la dama koy woo di ko jot mais man d'accordu ma nu jox ko Tyson xam nga la moo tax Tyson ba mu bàyyee bëre ba tey mosuma ko dégg mu wax ci làmb mosuma ko gis ci làmb man sama xarit wax dëggu si la man dama ko woo sax ba ko jëcc de cinq minutes de wuli mais nit même bu nekkee sa xarit dangay wax dëgg Tyson moom même bu ko fi ministre bi tegee di Mataba nekk sama père même bu fi tegee Tyson coow li yokku dama wax dëgg bu baax Matar ba même bu choisir Tyson teg ko fi ci coow li yokku parce que nit Tyson lu mu am te la la moo ko may si succès bu mu am la moo ko may mais te Tyson depuis ba mu ba mu béyee lam ba tey toog këram waxut defut defut ne damaa bëgg mais lan moo tax Sénégal yi bëgg ko jëmee Tyson dinoo gën. mais gën est ce que gën na Tafa Gueye muy wax est ce que gën na gën borom muy ay est ce que na Kayre est ce que gën na Kéba Kanté mi taxaw depuis deux cent di wax. ak soo technique est ce gën na ñooñu soo technique tey zone benn la ñu ñëpp ay mbër la ñu. parce que même licence même licence gis nga bu kenn xeeb ay soo technique yi nii parce que ay mbër lañu comme tey zone bu ma kenn xeeb bu kenn xeeb xalaatu soo technique bu kenn xeeb sama xalaat bu kenn xeeb. xalaat yi mais. man Wouly à part personne même bu ma la ministre daloon dinaa ko wax bu ko joxee Tyson coow li day yokku man xam ma ma mënu ma d'accord tey nga bay bëre ba bay bëre bëree toog toog sa kër ñëpp na la jox tamit pourquoi ñu ko ñu ko jox CNG barke Seydina Mohamed CNG bi jox ko dafaa géyee ma gënal fu jox Tyson jox ko booy karee ma gënal même jox ko Gris Bordeaux ma gënal parce que ay mbalañu ba tey ñu ngi kon te ci lamb ji mais xaw Tyson Pikine la dëkk mais déggoo waa Pikine sax wax parce que ba mu béyee lamb ba tey déggoo mu wax ci Pikine dara déggoo mu wax ci lamb dara mais pourquoi noonu naan tey bari que sëñ Bamba Alioune Sarr ba ba fi Alioune Sarr sax a gën jox ko Tyson man maa ko wax dama part personne nag man la engagé Tyson sama xayta may dëgg bu jotee dama koy wax man dëgg ku mu jot dama koy wax ma ne béyat fi Alioune Sarr sax ma gënal man wulli wulli waat jox ko Tyson Matar ba sama père maa ngi lay wax ne la man wulli sa sama xalaat mooy bu ko jox Tyson joxal ku la neex sopp Tyson. léegi bu fekkee le 31 octobre bi di ñëw danoo renouveler waat suñu papa Alioune Sarr est-ce que tamit làmb du am beneen maanaam xarka. non Alioune moom wax dëggu si yàlla waruñu koo renouveler man tam li ma xalaat mooy ministre des sports warut a renouveler Alioune Sarr parce que Alioune Sarr nekku fi Alioune Sarr képp yor fi xam-xam est-ce que xam CNG lépp. président bi yor légalement discipline Babacar Diouf gars yi xamuñu ko nag kenn du ko ci limaale mais c'est un terrain interdisable du kon nag duwaan la. am na xam pare dafa disponible man mii daaw bëri naa fi kewel doon xeex ak kewel ànd man kewel ànd ak man moo ndongoloo ñu xeex ci lamb ji ba ñu ñu waroon seen man bi ma demee pour feeku ji gars yi ñoo tee Babacar Diouf laa woo ne ko gars yi ma man man xeexuma kewel xeex ñu tey sama délicat Babacar ñëwal sama bureau ci suur la laa dem bureau am expliqué ko Babacar ci suur bi la woote ne bul jox leen ko délicat parce que yoonam na ko ci lam dafa solo ku disponible. mais Alioune Sarr man Alioune Sarr aj nañ ma fi ma dem ci Gaston Mbeng Gaston woo ko ne na ma dem fa ba ma ba ma demee sax man mun mun ma koo gis mais. en tant que président kenn mënu la ko gis du recevoir benn Alioune Sarr kenn mënu koo gis man Alioune Sarr xaw ma ko ma mais dëgg laay wax comprendre nga ni Sénégal ne xal ba yooyu dañ fa la baax ni ñu waxante dëgg tu yàlla rek tax Alioune Sarr kenn mësu koo kenn mënta dem ca kii kam ba gis ko fa ah man dem naa fa pour mu recevoir ma daa bañ sax gisuma ko mais pourquoi ñu ko dégg CNG bi nanu ko fi teg teg fi Babacar Diouf c'est-à-dire Babacar Diouf ku xam-xam-xam la te moo yore règlement ma bi te bi to colonel ko colonel duwaan caaxaan. il est compétent il est compétent boo boo pare il est disponible est-ce que xam ne Babacar Diouf chaque dimanche mu mu mu ngi ci làmb ji. waaw loolu la lañ soxla. kenn du ko xamee. Babacar du toog sa loos ci suuf lay toog ba ak suñu toog a kii te kilifa la. colonel douane am xaalis macha allah di liggéey fal mais dafa bëgg a làmb dimanche bu ne mu ngi ci toog du toog sa loose ci suuf lay toog ci ci yi toog doo ko xamee même Babacar Diouf beeg ko joxe CNC da koy diriger normal. non giri moom man dakooruma ak li mu def xam nga man su may wax sama xalaat lay wax tooguma fi pour wax lu neex giri mbaa may wax lu neex ay supporteram ma may wax lu neex bala ma neex combat commentaire aussi xool ma lu leen neex man li ma ans li ma xalaat la lay wax li ma ci xalaat mooy Gris warta ba warta dem ba ci biir di de ah loolu dafa ñaaw te war ko def parce que en tant que président des lutteurs en actif ah di di de lutteur national la léegi dafa wane wane bon exemple ah man mën naa wax ne Balla Gaye jotut ñaar Balla Gaye 2 jotul ñaar fukk man mën naa koo wax parce que digg Aziz Ndiaye mais jox na ko kaddoom te Aziz ne ma sama kaddu moom a gën a milliard mais gënu mu jot 10 millions lam ji ubbeeku mais woote la ja dara parce que moroomam mi mu ko sexat jotul ñaar dërëm seg Gaston jox boobu la ko jox mais seg bi Gaston dafa bëgg a xaar ba lépp leer mais xam nga Sénégal yi dafa am ñu naafeq nañ wax dëgg bi te yàlla tax man mbër laa am na combat sama avance lépp jotuma ko te booba tey woo ma promoteur du ko laaj dara combat yi taxaw yëpp tafaat ti euh, nag doo ñang tafaati gor la boo ñang gor la Pape Thialis Faye xam nga lu joxulee woon dërëm poxol ba pare def ñoom face to face tafaatin di muñ dëggoo tafaatin wax fenn bag dem leen da jox dimanche ñun plus de deux mois Pape Thialis Faye def signature taxaw na dafa ne taxaw na ami mbokk ba ñang ne am bi ko bi bi ñu taxawul gars yi di wax bala gay booy ñaa bàyyi booy ñaa dégool dégool déer ne même milliard duñu war Pape Thialis loolu mooy grandeur loolu mooy gore mais wax dëgg sa Gris warta delloo avance bi taxaw fi naan ay ni ma ko joxee sama adversaire laak yooyu nañ ko baax adversaire amul xam nga taxaw fi Gaston daa mel ni sama adversaire noo ma yooyu amu fi ñaar Gaston du yàlla Gaston du yàlla Gris bu demee booy solale fi mu toll ci lam na ba parce que jege na ba bay jege na ko aussi parce que moom dafa war a ji parce que comme ak Balla Gaye de kenn bëgg ko woon nañu wax dëgg bala Balla Gaye Boy Niang la ñëpp bëggoon comprendre mais nag Gaston aussi lu ko Gaston aussi kenn rawu ko bu fi béywul giri dem tëggi bala gay Boy Niang li du ci am Gaston aussi kenn rawu ko lépp mooma lu ko giri def baax na ci moom ooy ma wax dëgg mais tamit giri booroo nee na Gaston lu ñu ko def baax na ci moom dama la ne moom giri li mu wax moo ko moo tey parce que Gaston non dama déglu wax sama père ma wax te dëgg sama doom bi jabaram laa ko waaw tuddee mais dëgg Gaston war foon a béy combat bi Sénégal moo tax ak baaxul bi Sénégal yi bëgg. mooy Balla Gaye Boy Niang. mooy mooy Boy Niang ñëpp bëgg ko fi moo tax ko ci dal baax na. mais tamit ñu bëri na ma am revanche ba dafa teel sax. neexul tàngal ceeb la reer ak ceeb añ añ ak dafa neex reer ak boo ko kenn bëgg ko. du mën a ñàkk baaxul moo tax combat bi kenn bugg ko moo tax yenn yàqu sax Balla Gaye Boy Niang mooy combat bi nag. Boy Niang aussi am na combat bu mag. waaw ah, Tafatine ma ne barke sëñ Bamba combat bi neexut de Gris bala gay du combat bala gay ame seen sam moo tax foofu c'est que man xam Gaston li tax li tax amateur di ko du leen tegal li ñu bëgg day teg moom li mu bëgg moom loolu day teg li bëgg Gaston waru woon sax xalaat Gris Balla Gaye wala ko woon a xalaat sax Boy Niang Balla Gaye mooy la parce que tey bu nu amee. Modou Lo Ama Baldé ah ñu amoon. Balla Gaye Boy Niang amoon Tapha Tine Ahmed Sène. waaw loolu lam mën na cee jaar. Euh, Gris Bordeaux Lac de Guiers mooy combat. waaw Gris Bordeaux Lac de bëgg na. mosuñoo. a bëre loolu mooy combat bi. Gaston lu ko lu wax baax na si moom man sama yoon si. laay sama yaay. wal ya